ndax tey jii li ñu woote bu fekkonte ne man damaa nekk ragal wala ma nekk tapet wala ma nekk kuy dellu avance yaakaar naa te toog gi ma toog fi du ko def ndax faso xoqtal bu ne dégg naa ko façon tiital bu ne dégg naa ko faso wax bu ne dégg naa ko waaye ma leen xamal la leen ku Serigne Touba nekk sa maam lan ngay ragal ku Serigne Fallou nekk sa maam lan ngay ragal man maam Thierno Birahim daamal daar mooy sama maam namawuma ko de mais dafa nekk lu am. sëriñ Mbacke Bousso nekk sama maam kon lan la jën di ragal ndox kon tey su ma waxee damaa war a wax su ma waxul damaa war a wax surtout ment ci koo xamante ne dañu laa fekk fa nga nekk ñu tooñ la jaay la doole ndax ku nekk xam na ne ni ñu ma jàppee booy na ci noppi Sénégal yëpp dañu maa fekk dama dañu fekk sama biir oto kidnappé ma jaay ma doole forcé ma daan may tëj te yéen ñëpp xam ngeen ne ci ay tappale ki fen rek lañ ma tëjee tappaleeg fen yooyu ñu ma tëjee nag ci ay tappaleeg fen dong tamit lañ ma bàyyee kon jàppale ci ay fen tëj la ba noppi ñëw ne la doo wax loolu kon ban réew lañ nekk kon man su ma waxul rek dictateur bi bi ñu fi installé kon man damay ànd ci loolu te loolu duma ci ànd mukk ndax man fu ma dëgg fekk rek fa la may bàyyi bi ñu ma fekkee sama oto euh, fekk ñuy dem benn pick-up daal di daw ba wër ñu daal ñuy arrêté taxaw suñu kanam sama chauffeur sax dafa frein maanaam brisque mais bu fekkonte ne man maa oto bi damay foncer seen kaw bi ñu wàccee ñoom ñu ñu wër oto bi euh, sol ay soluñu yi mais dañu civilu ñoom ñëpp yori fetal mel na koy jàpp koo xamante ne criminel la wala bandi la bi ñu ñëwee ñu taxaw ma wàcc sama vitre oto man leen lan la ñu ne ma police man leen waa léegi lu mu doon ñu ne ma dañoo jot ordre ne nañ la arrêté man leen waa d'accord man leen léegi an seen carte ñu génn seen carte daan may wan ma xam ne ay police lañ ma wàcc sama oto ñeneen ñi nekkoon sama oto ñu force leen ñu wàcc bi ñu wàccee ñu taxaw fa pendant deux heures de temps parce que ñoom nee nañ ordre lañ jot te ordre bi ñu jot xam naa ne moom la ñu waxal parce que téye nañ ma deux heures de temps yoo xamante ne ñi ngi ma téye ci biir ci terrain bi ñoom nekk ci oto bi di woote bi ñu demee ba nga xamante ne taxawaay bi yàgg na fa lool ba ma moo Modou Matar Sarr seen naataangoo ma wax ko ko taxawaay bi yàgg nag ma ñëw ma ne leen da ngeen maa jàpp da ngeen mën yóbbu ma. mënu leen ko cinq minutes laa leen may bu cinq minutes yu jotee bu ngeen ma yóbbul ma taal sama oto dem te ni ma ko waxee woon noonu noonu la amee su ma doon cinq minutes am néew la ñu yóbbu wala ñu mal mëne ma daan may yóbbu parce que man moom du ma ragal yàlla def deux minutes lañ ci teg ñu dugg seen oto am ku ñu woo génn gi ñu génnee daan may ne ma coppet duggal seen oto muy pick bi bi ñuy dem ñi ma àndaloon muy sama benn rak ak euh, sama serveur ak euh, sama benn maanaam secrétaire ñoom ñu ne sëñ bi ñu yóbbu nii te xamuñu fa lañ ko yóbbu nañ ko topp parce que maanaam wóorul parce que ñii nee nañ ay policier lañ mais war nañ sëñ bi kàttam mais wóorul ñun nañ ci topp bi ñoo ñu toppee ci oto bi ñu ñëw ba ci police Mbàkke fi ko bi dugg sama oto bëgg a dugg ñu dàq leen leen bu leen fi gaare bi mu duggee ci bureau enquêteurs yi euh, ñi ma ñi ma àndaloon ñëw dama xool ñu téyewaale leen léegi euh, enquêteur bi ñëw di ma diglu ma ne ko ah, yow léegi lan moo tax ngeen jàpp ma mu ne ma euh, événement bu toll nii ñu jàpp ñu bari te jàpp ñu sëñ sëñ Assane Mbacke kon day mel ne ñun maanaam suñu liggéey dafa des ma jàpp ne nit police maanaam wala gendarmerie bu ñuy jàpp nit dañ ko war a jàpp ci lu légal lu jaar yoon mais ñëw jaay nit ki doole jàpp ko ba rek wax sa làmmiñ daan bu ñu la jàppul day mel ne kon ñun liggéeyuñu senegal lii moo fi am nii lañu ma jàppee bi ñu ma jàppee bi ñu ma jàppee daan may yóbbu Mbàkke tegal teg ma fa àjjuma samedi dimanche te li ci gën a xoromu mooy xam nga mënoon nañ laa jàpp sax ci mais dañ laa jàpp ba noppi ñëw di wax ak yow naan la bàyyil Sonko ñu bàyyi la barke Sëñ Bàmba bàyyil Sonko ñu bàyyi la man leen man di ngeen maa toon jàpp ma kon fii ma toog awuma lu mu fi négocier da ngeen may bàyyi wala ngeen daan may yóbbu rek euh, léegi euh, vendredi samedi dimanche lundi ñu ñuy déféré parquet bi ñu demee lundi ma amaat retour de park muy benn mardi bi ma ñëwaat ñi ma àndaloon ñu mandat dépôt leen man tamit ñu amee defaat retour de parquet nga xam ne quatre fois lañ ma def retour de parquet te quatre fois yëpp lenn rek moo ko waral changer sa position ñu ñu man laa bàyyi. ma ne leen nag man comme que ñi ma àndaloon mandat dépôt ngeen leen man maanaam gor lay doon même bu ma demoon juge bi na ma bàyyi naa la ma taxaw foofu maanaam offensé ko parce que dama ànd kii nit ñu jàppale leen ba noppi ñu may bàyyi di leen téye bi mu ñëwee juge bi na ma dañu noo dañoo li ñu lay toppee mooy yow yaa organisé woon yow yaa organisé woon manifestation ba ba ay yàqu-yàqu am fa en même temps tamit da ngaa xirtal ndaw ñi pour ñu song alkaati yi. ma ne ko bu dee ne bu dee bu dee ne man damaa xeetal ndaw ñu ñu song alkaati yi doo ma génneel benn vidéo bu ma waxee ne ndaw ñi song leen maanaam alkaati yi bi ci topp mooy euh, manifestation bi du du ngeen ma indil sama tur fu mu nekkee ci demande autorisation bi wala ngeen ne mën naa ko organiser kon di bu ngeen ma jàppee nii dangeen ngeen maa jaay doole te yow monsieur lenn rek. moo ma moo ma moo ma jaaxal ci yow parce que dañu dañoo jàppoon quatre-vingt nangam personnes indi leen bi ñu ñëwee ñu jël ci cinquante cas yi mandat dépôt leen ñi ci des ñëpp ay élèves lañu ak ay étudiants bi ñu ñëwee ñu nekk ay élèves étudiants ñëpp dañu leen a bàyyi ki ki ma àndaloon muy Soxna Diop nekk étudiante waroon na def bag ren ñu mandat dépôt ko ndax lan maanaam ànd gi ma àndoon ak man loolu lan moo ko gën a nekk tooñ kon man ma jàpp ne. ki nga xamante ne mooy Samba Bathily yoroon dossier boobu dafa far parce que bu farul woon na mu bàyyee étudiant yee dina ko bàyyee étudiant yi bàyyee yàq na yàq nam njàngam mandat dépôt ko ci loo xamante ne tegul fenn bi ñu mandat dépôt mu neex ma loolu nag ndax man moom ku ma jàpp ci dëgg jàpp ma ci loo xamante ne nekkul yoon fierté laa ci am fi ni damaa am fierté ne man damaa génne kaso ndax dañu maa tooñ ñu tëj ñu ñu la ma fi tëj 4 mois bi ñu ma fi tëjee 4 mois proposition bu ngeen yaakaarul rek ñëw nañu fa wax ma ko ne ma bàyyil Ousmane Sonko ñu jox la lii nga def déclaration te ñoo ñu naan ma bàyyil bàyyil Ousmane Sonko Ousmane Sonko leen gën fuuf kon man am na loo xamante ne ci biiru kaso du fa nekk mukk naan maa ngi négocier ñu ne ma ah kon yow bëggoo génn man leen ak lu ñu ma doon rek bu doon ñaari at sax baax na ñu demaat ba ci yàgg. ñu may def la waat beneen audio ne ma naa def audio boo xamante ne damay wax ne bu ma génnee duma def déclaration du leen attaqué duma ma wax dara su boobaa ñu man maa bàyyi mooy ci maanaam korite gi mën na leen bu fekkente ne loolu la ma xam ne kon di ngeen ma mandat dépp waaw dinaa fi yàgg ñu aan ma fay bàyyiwaat te li ma gën a mett ci loolu mooy dañ ma euh, Samba Bathily daf ma téye deux mois quinze jours yoo xamante ne nangul kenn gis ma du bàyyi du ndey du yaay du mbokk du xarit du jegeñaal du sama avocat ku ñëw mu bañ na du la may visite te bu keneen ñëwee bokk APR wala mu jege APR mu may la nga ñëw visiter ma ba noppi di jéem a négocier ak man naan ma bàyyil ñii ñii dañ laa seetaan ñi baaxuñu ñii fii na lañ xool leen loolu maanaam yéen askanu Sénégal yéen laa wax ne xool leen loolu ki nga xam ne ay mbokk mënuñu koo gis ay jegeñaal mënuñu koo gis ay avocat mënuñu koo gis nga autorisé ñeneen ñoo xamante ne benn bokk boo ko yaakaar lañ bokk ñuy ñëw di ko gis kon dama naan Sénégal kon man man na maa wax ne dëkk bu jaar yoon yoruñu ko dañoo yor njiit yoo xamante ne dañuy maanaam gëlëmal kon ñi nga xamante ne dañ leen a jàpp ñuy ñu ne dañ leen a tudde ay manifestant muy xale yi nga xamante ne cinquante lañ fi ne ni ña nga fa te après 10 février boobu am na ñeneen ñu jàppat ñoo xamante ne dañ leen a bàyyi nga xamante ne ñun ñun ñu jàppoon nga xam ne 7 mois la ñu téye te xale yi ñu ngi seen huitième mois fi nii te ba tey ji maanaam bàyyeeguñ leen te xale yi luñ leen jàppee yenn su ngeen ko déggee sax ay reetaan daf leen a jàpp ndax koo xamante ne dafa dugg ci oto Mbàkke Tuubaa di ñibbisi ñu arrêté Mbàkke tubaab bi wàcce nit ñi jàpp la daal di yóbbu wala ñi nga xamante ne dañoon ramasse guddi gi police yi dañoon ramasse jàpp ay nit boole leen ci manifestant yi ay manifestant lañ am na koo xamante ne mayo maanaam Sénégal moom la sol moom lañ ko jàppe ne ko da sol mayo Sénégal moo tax ñu jàpp la am koo xam ne dafa takk drapeau vert jaune rouge ñu ne ko yow li nga takk moo tax ñu jàpp la am koo xamante ne xaarim fay nga xamante ne mason la ñu jox ko santé mu koy liggéey ànd ak doomam wàcc ñu jàpp ko jàppale doom ji te xaarim fay moom bañ koy jàpp dafa amoon ngénte te ngénte li ci biir euh, maanaam ci biir euh, détention bi foofu la ko ngéntee maanaam foofu noonu la ko ngénte li fekk ngeen xamante ne ko xaadim moomu baayam da doon misère loolu di naqarlu loolu ba xëy daal di faatu muy du Faye te ni papam faatoo noonu noonu la ku ñaan baara sëy papa moom tamit yaayam tamit noonu la misère jàpp gi giñ leen jàpp tooñ leen ba xëy daal di faatu noonu mu amee ci baara moom noonu la amee ci ku ñaan maam góor cuun noonu la amee ci tamit ku ñaan maanaam dibaa ñoom ñëpp seeni i wajur génn na fa àdduna ci aw naqar ak tiis kon Macky Sall li mu teg ñooñu xol bu naqari boobu li mu teg wajur yi li mu teg li nga xamante ne maanaam ay jege lañ ñaa lañ ay xarit lañ àq jooju yàlla na ko dal àq jooju mu teg bépp Sénégal boo xamante ne dangaa ñëw sa yoon nekku ci ñu jàppale ne da ngay manifester tey la mois àq jooju Macky Sall yàlla na ko dal kon damay wax ne xale yooyu ñu jàpp nañ leen bàyyi defuñu dara dañ leen a tooñ ba noppi tëye leen ci loo xamante ne amuñu leen te ñooñu Touba lañ dëkk ñii dëkk Mbacke ñu nekk ay doomi Touba nekk doomi Mbacke kon loolu lépp day firndeel ne Macky Sall li mu doon wane rek ci diggante Touba digganteem ak Touba mooy moom bëggul waa Touba ndax bu mënee jàpp ndawi Touba tëj jàppi euh, sones Touba yu tëj te ba tey ji dégguñu kenn ku ci wax kon loolu ñaaw na trop te ñiñ jàpp ci ay détenu bari na te ku ci nekk maanaam am nga sëriñ kon damay lancer rek sëriñ si nañu wax wax ak Macky Sall ñu bàyyi xale yi parce que xale yi fee ñu nekk sonn nañ fa te it ah jaaxle nañ loolu tamit de te ku leen fa wàllu e ñu jël te man damaa teg sama loxo ci kaamil waat ne defuñu dara kon nag am na loo xamante ne day bëgg metti bi may commencé di sant damaa fàtte sant xam nga xel rek maanaam dafa mënta matale ñëpp waaye su ma nee Sénégal yi rek parce que patriote yi rek ñoom ñooy maanaam Sénégal yi ndax Pastef bu Touba ak bu Mbacké wax dëgg yàlla jàmbaar lañ lool diaspora bi ñoom ñëpp dañoo jàpp ci xeex bi ba nga xamante ne lii am na kon bu lii amee tamit jar na tamit ñu sant leen ñoom ñëpp kon tey jii mu am loo xamante ne maanaam dama ko bëgg a leeral ndax bi mooy sama ñetti yoon ñu may ñu may mandat dépôt te mandat dépôt yi dara wërlu ko lu dul ak tooñ ndax bi ñu may njëkk jàpp Marième Faye Sall laa porte woon plainte maanaam CREI muy loo xamante ne lu leer la loo xamante ne lu ma teg sama loxo lu preuve bu leer mu nekk ab sàcc bu mag nag ma pelente ko pelente boobu nag jóg ñu proposé ma xaalis bu ne ne ma pour naa naa naa dindi pelente bi ñu jox ma xaalis bi ma lànk ñu proposé ne ma naa exilé wu dem Angleterre ñaari at ma taxaw ma leen man su même bu may dee sama réew laay dee ñu ne ma kon Marème Faye nee na day xeex ak yow bi bi ñemaa day xeex ak yow 15 jours lañ ci teg ñu daan may jàpp ci dossier boo xamante ne ba muy xew sax man maanaam fekkuma Touba ñu ne man maa ko def jàpp ma tëj ma ci huit mois yóbbu ma chambre criminelle daan may àtte daan may setal xool leen boobu tooñ ki nga tëj huit mois moo def àtte ko da koy setal beneen bi ma jàppaat mooy affaire élection yi ñu ne man maa yàq bureau ya te loolu lépp dara amu ci bañ may àtte sax ñi ñi doon àtte ñoom ñoo demandé ne nañ ma setal daan ma ciy tëjaat 4 mois daan may bàyyi bii tamit noonu ñu ñëw tëjaat la 7 mois xëy xëy xëy xëy daan lay bàyyi kon bis naka damaa jël ndogal pour porte plainte état bu maanaam Sénégal parce que lii moom day dakk jàpp bu la neexee tëj bu la neexee bàyyi lii moom dootuma dootuma ko nangooti sama àdduna wala bu ñu may jàppati dina demee neneen kon nag yéen ñi ñu yebal naa leen dem leen jàppi maanaam Assane bay boo na ngeen xoolaat bu baax baax a baax leen parce que su boobaa moom leneen leneen la wax ki nga xamante ne nag mooy Sidna Ousmane Sonko fu ñu jaar parce que ñun mooy sunu candidat mooy sunu leader tey ci politique tamit moom lañ ci àndal ci gëm-gëm ak engagement ak ci lépp kon man ma jàpp ne Ousmane Sonko bu duggee kaso bëgg Sénégal moom moo tax bu duggee kaso xeexal am réew moom moo tax kon man ma jàpp ne ñun Sénégal yi war nañ koo mën a mën a delloowaat loolu te niñ ko koy delloowaatee leen rek la. muy taxaw résister xeex loolu rek mooy tax Ousmane Sonko liibu te xeex boobu nag maa ngi ci woo bépp sénégalais di ci woo bépp patriote ñu taxaw xeex pour Ousmane Sonko génn ci réew mi parce que parce que euh, euh, Ousmane Sonko dañ ko war a génne kaso ak lu mën a xew te loolu leen mën ñu ko may lu dul suñu force suñu doole ñu ànd booloo nekk benn woote ay marche woo woote ay manifestation fexe ba tànqal Macky Sall ci réew mi fu muy dem fu ne ak ci diaspora bi ak diaspora bi ak fépp fu mu dem dégg fa turu Sonko loolu rek moo mën a tax xañ Macky saala jàmm ba mu bàyyi Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag moom dina ko bàyyi ci nii walla ci nee wala boog man dinaa xeex ba Ousmane Sonko génn wala ma xeex ba fekk ci biir maanaam kaso ba te lépp lu laaj nag dinaa ko def bu leen neexee nag nañ ñëw jàpp waaye lii moom man maa leen ko wax na ma taxawoon ci xeexu Abdou Karim Wade di xeexal PDS lu ko raw dinaa taxawee ci xeexu Ousmane Sonko taxaw xeex ba mu génn kaso wala ma taxaw xeex ba ba ko fekk ci biir parce que biir gi jommul kenn te képp ku patriote ku ne war ngaa jéem a xantawoo pour ëllëg nga ne ba ñuy jàpp Ousmane Sonko di ko sonal ci nguurug Macky Sall di nguurug dictateur Macky Sall man taxawoon naa wala sama doom taxawoon na wala sama sët taxawoon na doon xeex pour liberté Ousmane Sonko kon kaso bii du dara maanaam bu leen kenn tiital ci ay kasoog ay léeg léeg léeg lii parce kaso moom maanaam moo ma ëpp sax sécurité maanaam bitti gi kon nag bu fekkente ne ñoom liñ jël arme muy seen armu muy kaso def ko armu di ko xeexee man Assane Mbacké man moom laa gën a ñeme parce que ku jaar ci daara jaar fu metti kaso du la jaaxal kon nag maa ngi ci woo bépp sénégalais di ci woo bépp patriote dinañ jóg taxaw xeex jaamaarlu ak Macky Sall ndax nguur gii fi nekk dañoo sonal képp kuy sénégalais ak ku mën a doon bu la laalul laal na sa mbokk wala sa xarit wala sa jegeñaar wala sa wéyjur te lii fi am ni musu fee am kon nag nañ jóg taxaw jàmmaarlu ak Macky Sall ne ko arrêté la te nag dafa war a arrêté parce que fu laal mu nooy fu mu laal mu nooy bu bu bu yàggee dictateur la fi installé te loolu mi ngi ko fi commencé di installé kon nag loolu ñun ñoo ko war a mën a bañ kon nag maa ngi leen ci woo yéen Sénégal yëpp ñaari date yoo xamante ne woote naa ko pour ñu pour pour rassemblement benn bi xale Mbàkke yi ñu jàpp ak xale Tuubaa yi ñu jàpp. la 20 octobre maa ngi woo képp kuy mbokk wala ngay ndey wala ngay bàyyee wala ngay wéju wala ngay loo mën a doon nekk xarit wala nga xamee maa ngi lay woo Mbàkke ñu def marche pacifique boo xamante ne di leen wane ne doomi Touba lañ jàpp doomi Mbàkke lañ jàpp ndax ñeen nekk ci kaso ba ñun ñoo leen mën a dimbale ñoo leen mën a xeexal waaye bu ñu leen bàyyee noonu rek faale leen woowuñu leen wala lijjanti wuñu leen su boobaa tamit mën naa métti ci ñoom seen wajur seen wajur yi sonn nañ de ndax ajuma li ñuy daj di dem di visiter ji dëgg dagg dagg paas fii ba njaareem te ni dëkk bi méttee ñuy daj lu ne huit mois ñu am ko fa kenn waxul loolu nag mi ngi bëgg ëpp ay doomi Tuubaa lañ nag de ay doomi Tuubaa kon nag doomi Tuubaa yooyu nañ leen wàllu nañ leen taxaw nañ leen taxaw seen xeex pour ñu am seen liberté kon loolu maa ngi ciy woo ñëpp bi ci des mooy euh, le 3 novembre tamit maa ngi woo sénégalais yëpp place de obélisque pour ñu def fa grand rassemblement bu mag wan Macky Sall ne ko Ousmane Sonko mi nga jàpp bàyyi ko détenu politique yi nga jàpp bàyyi leen te détenu yi buñ ci tuddee ku ci mel ne Bassirou Diomaye Faye tuddi ku ci mel ne Fadilou Keïta tuddi ku ci mel ni Abdou Sylla Abdou Sylla ñaata at ak ñaata weer at ak weer ak yu topp waaw un an cinq mois Abdou Sela ñu tëj ko ci kaso bi te loo xamante ne ay feneki tappale dong la boobu ba léegi mu nekk ci kaso bi ñu koy seetaan loolu nag ëpp na kon libération Abdou Sela moom lu ñu ñor la te dina taxaw xeex Abdou Sela ak Fadilou Keita ak Bassirou Diomaye Faye Toussaint Manga Mame Pathé nga xamante ne moom engagement la am ci Ousmane Sonko bëgg ko te yàlla tax ñu jàpp ko tëj ko tëj bi tëj bi yemuñu ci de waaye dañoo dem toj palaasam di di ko xor ñooñal parce que tëj la kaso di dem di yàq sa alal loolu maanaam ëpp na kon ku ci mel ne maam Pateek Toussaint Manga su ma leen limee rek maanaam ak euh, Diop Taïf ak Omar Bamba Diop surtout Omar Bamba Diop Omar Bamba Diop nga xamante ne moom doomu daara la kon Omar Bamba Diop tamit war nañ ko mën bay parce que kaso ba la moom tamit ci biir otoom lañ ko fekk daf koy jàpp kon ku ci mel ne Omar Bamba Diop moom tamit nañ ko bàyyi nu mu gën a gaawee kon daal ñooñu ñëpp ma tudd. ma yàlla nag balaa la 3 ñu nekk fa mais daal la 3 maa ngi ñëw woo ñëpp képp kuy sénégalais képp kuy patriote képp ku bëgg réew mi nga ñëw place obélisque ñu mars mars boo xamante den wan Macky Sall ne ko arrêté li ngay def dara du ci dëgg dara du ci yoon te it Ousmane Sonko nga ànd ak moom am dara xëy suba daat koy war moom yomb na lool ndax am na ñoo xamante ne ginnaaw yàlla bu ñu nekkee maire wala ñu nekk ay député wala ñu nekk leneen ginnaaw yàlla Ousmane Sonko moom moo tax pourtant le 13 juin mille 2022 barke Serigne Touba laa woo laa laa woo Ousmane Sonko ñuy waxtaan man ak moom 2022 de barke Serigne Bamba ma ne ko Khalifa Sall teyal ci moom mu ne ma ah parce que boobu dafa am ku ma wax ne ma Khalifa Sall démb moom ak Macky ñoo reerandoo ma ne ko teyal ci moom mu ne ma ah, sëñ bi looy wax ni ma ne ko moom ak Macky Sall maam réerowuñu mu ne ma déet waay ma ne ko waaw ma ne ko te lii ma lay wax di ci am firnde ma ne ko dina la bàyyi te boobu yàgg na 2022 ma ne ko dina la bàyyi tey dina nekk candidat bi ci des mooy mooy nekk candidat wu maanaam tubaab yi tey la ma ko waxoon lépp tey jii ndikk na parce que Khalifa Sall dafa wor dafa trahir mais nag man Khalifa ak woroom moom bettu ma ndax man mii rek damaa daj ci moom lu ne xeexal ko fu ne daj ci moom lu ne teewul ba muy wor man la njëkk a war waaw bi mu génnee man la njëkk a war kon yaakaar naa ne bu waree Ousmane Sonko tamit daa jël aw mañanaan rek waaye système bii fi nekk daal ñu fi installé système bi lañu ñu war a changé te it may wax Sénégal yi ne nañ ubbi seen xel yi xippi seen bët yi xool élection yii di ñëw mu neex Macky Sall mu naqari Macky Sall Ousmane Sonko day bokk far force parce que li tax Ousmane Sonko di bokk. mooy ñun Sénégalais yi parce que dafa ne man ba sama mbokk ci élection yi du Macky Sall du ay conseil constitutionnel wala yooyu yéen ñi nga xamante ne yéen askan wi ci yéen la aju te askan wi ñëpp nee nañ waaw nee nañ Ousmane Sonko la kon nag comme nee nañ waaw ñun ñooy porté combat boobu ba mu yi far force mu neex ko mu naqari ko kon nañu waajal ñu ñëpp waajal parrainage yi waajal tamit élection yi fexe ba daal keroog ëllëg 25 février ñu ne Macky Sall moom yóbbu nañ xam nga élection yi 24 mais le 25 rek ñu ne moom Macky Sall yëkkati nañ ba ci kaw dóor suuf